fan ngay cliquer compte yu si nekk yëpp feeñandoo fenn nga xam ne foofu mun nga fa créer chaîne mun nga fa gisandoo compte yi nga xam ban exactement mooy compte personnel bi ak yan yooy compte de marque yi ci fin bi dinañ leen ko wan avant ñuy jógee bi léegi euh, boo ñëwee nag bëgg a xam directement rek sa compte ndax compte de marque wala compte personnel la balaa ñuy dem ci loolu nañu am précision bu ñu def su fekkee sa adresse Gmail bi benn canal YouTube kese moo ci nekk canal YouTube boobu compte personnel la su fekkee ñaari ñu ngi ci rek même benn bu dee utiliser ko defoo ci vidéo defoo ci dara mais ñaari ñu ngi ci boo cliquer YouTube ñaari la ñaari logo la lay wan ni moo ngi si ñaari compte comme ni mu wax moo xam nga utiliser ko utiliser woo ko am nga benn compte am nga benn compte de marque parce benn kase compte personnel la yeneen yi ciy teg yëpp compte de marque la voilà niñ la ko waxee woon nag vidéo bii di ñëw nag di topp si bii waaw moom nag fa la àlli ji nekk dinañ la woon ni ngay déplacer euh, compte de marque pour jële ko ci benn adresse Gmail yóbbu ko ci beneen adresse Gmail voilà loolu ci vidéo bii di ñëw lay nekk mais tey dañ lay xamal différence ba nga xam compte Nomad compte personnel seen différence ni ngi leen di ràññee ci sa ay canal pour après bu ñu demee ci transfert booy transférer nga bañ di juum voilà parce que tam ci defee erreur ci transfert yi mun nga perte sa canal perte données yi mu àndal lépp te dafa nekk action boo xam ne irréversible la lay YouTube wax action la boo xam ne bala nga koy def dañ lay koy bindal tableau ne la ah li ngay waaj def kat doo ci mën a dellu ginnaaw ndax wóor na da nga kaa bëgg a def soo nee waaw nga continuer soo ci defee erreur nag ah, doo ci mën dellu ginnaaw loolu mooy li ci nekk mais boo bëggee xam compte demande compte personnel yomb na connecté nga ci sa YouTube da ngay ñëw ci logo bi nga cliquer boo ñëwee ci logo bi nga cliquer lan ngay def da ngay wàcc fii ñu bind paramètre nga cliquer ko tamit soo wàccee fi ñu bind paramètre nga cliquer ko lii su fi feeñeere rek bi compte de marque la muy lan ajouter ou supprimer un ou des administrateurs ci compte de marque kese lay feeñ du feeñ ci compte personnel voilà nga xam ko voilà ñu dem connecté beneen compte nga xool ñu cliquer logo bi fii parce que adresse email bi gisoo bu ñu cliquer fii changer de compte gis nga dangay gis ni ñetti compte ñoo nekk ci adresse email bi ñetti yëpp su lañ nekk léegi ñu ñëw ci bii ci suuf ba léegi bii ci suuf bu ñëwee ci bii ci suuf ba léegi gis nga lii feeñ na fi ba léegi ajouter ou supprimer un ou des administrateurs kon compte bi compte de marque la ba léegi compte bi ñu dem ci beneen compte bi ñaari dafa am ñaari YouTube yi nag dañoo xaw a nuróolu ko ñu cliquer fi changer de compte nga bii ak bii dañoo nuroolu ko mais titre canal yi bokkuñu voilà ñu ñëw léegi bi ci kaw bii xool. ñu ñëw bi ci kaw cliquer nañ ko ubbeeku na bu ubbeekoo lu muy defal gis nga ajouter ou changer administrateur amatu fi voilà ajouter ou supprimer un ou des administrateurs amatu fi dem na voilà kon lu muy teg compte bi compte personnel la bi mooy compte bi nga xam ni moo ànd ak adresse Gmail bi moom munoo ko déplacé pour nga déplacer ko il faut nga modifier ko def ko compte de marque ba pare voilà comme ni ñu la ko wax vidéo bii di ñëw di dañ la wan nan ngay déplacer compte personnel def ko compte de marque wala nga mën a dindi compte de marque def ko compte personnel parce que vice versa la bu fekkee da nga am ñaari compte ci Gmail bi soo dindee compte de marque bi def ko compte soo dindee compte personnel ba ko def compte de marque dañuy remplaçante compte de marque bi si nekk mooy ñëw nekk compte personnel compte personnel nekk compte de marque ce qui fait personnel bi nga bëggoon déplacer da nga mën a déplacer sans problème su dee nag sa compte bi nga bëgg a déplacer dafa fekkoon mu nekk compte de marque Euh, bi nga nekkul moom nga créé ak email bi mais après nga ko créé woon moom doo doo changeante risque bi mën na bañ a bëri doo doo changeante di def compte personnel wala compte de marque moom da ngay jël compte de marque directement rek nga ajouté ci propriétaire bu bees si email bi nga ko bëgg a yóbbu après bu 7 jours yi matee nga transfert ko def ko propriétaire principal supprimer propriétaire bu njëkk bi canal bi daal di jóge ci email bi dem ci beneen email bi voilà comme ni ñu la ko waxee nag dafa nekk processus boo ne léegi li dafa xaw day xaw a jaxasoo boo ko teewloo rek di nga ko mën a comprendre compte de marque moom kase lañ mën a déplacer jële ko ci email yóbbu ko ci beneen email léegi nag comme nga am compte compte bi nekk personnel nga bëgg ko yóbbu ci email beneen email da nga koy def compte de marque ba pare. loolu après vidéo bi ñëw nag lañ lay wan ni ngay transférer compte personnel def ko compte de marque après ajouter ci li nga xam ne mooy administrateur principal bu 7 jours yi matee tamit ñu ñëw wan la ni nga koy dindee transférer ko ci beneen adresse email léegi comme niñ la compte bi compte. Euh, personnel la du compte de marque parce que nga affaire affiché wu ci léegi li ma la woon sànq dinaa la ko woon ci fin bi am na tam feneen fu ñu ko mën a euh, xoole ci YouTube ñu dem foofu ba pare soog a ñëwaat waxoon waaw ñu ñëw fii boo ñëwee ci bële nga cliqué compte canal bu munti nekk nga cliqué fii nga ñëw YouTube studio nga cliqué YouTube studio pour ñu wan la ni fii rek nga ko mun xoole am na beneen yoon soo ñëwee YouTube studio nga ñëw ci suuf paramètre bi ñu def ci suuf nga cliqué ko léegi paramètre ubbee ko Euh, gis nga triangle rouge bi nag dinañ ñëw def ci vidéo parce que bëri na canal yu mu nekk mais dinañ ci def vidéo pour ku mu nekk ci sa canal boo duggee fi nga mën a xam euh, lan la léegi fii la ñuy ñëw autorisation moo ñu concerné boo ñëwee cliquer autorisation di nga soo gisee mu defal la fii propriétaire def email bi rek compte bi compte principal la du compte de marque voilà compte principal lii moo fi nekk boo duggee ci autorisation dinañ la won compte de marque boo fi duggee leneen li fi nekk soo ko transféré wul ak compte de marque boo transféré tam li fi nekk mais jàppal lii moo fi nekk dañ lay defal fi noowu compte bi defal la adresse email bi defal la accès propriétaire waaw bii mooy compte personnel voilà jàpp ko léegi ñu tëj ñu dem ci beneen compte wan la nga xam ñu dem ci bii stop kon connecté wu ci compte bi voilà compte boo ubbee ko ñu ñëw ba paramètre boo cliquer paramètre léegi nga ñëw fii autorisation ñu cliquer autorisation gis nga lii boo fi gisee rek compte de marque la voilà compte de marque rek mooy def nii su ko defee mën nga fi cliquer gérer les autorisations comme niñ la wax email bi nga bëgg a dugal comme compte de marque la nga bëgg ko transférer beneen email boobu bu ñuy dem bay transférer dañ la wan ñaari yoon benn yoon mi ngi ko mën a jaare fii la beneen yoon bi nga ko mën a jaare mooy fi ñu la njëkk di wan sànq foofu tam mun nga ko fa jaare ñaari yoon nga am pour dem ci même endroit voilà léegi fii mooy pour bu fekkee dafa am ñoo bëgg a autoriser ci canal bi comme dinaa la wan loolu ci YouTube solution YouTube solution compte de marque la mais fii dama transférer autorisation yi lu tax parce que dafa am ñu ma bëgg ajouter ci compte bi ñoom kese ñooy mën a gis vidéo formation yi ce qui fait que dama leen def dama leen a jox ay dama dama transférer autorisation par exemple fii boo cliquer transférer les autorisations ma wal pour nga xam ko ji nga lii la la indil transféré naa ko léegi ji nga ci mu nekk propriétaire ce qui fekk damay mën a invité li nga xamante ni mooy ay nit pour ñu am accès ci kanaal bi voilà léegi ma désactiver ko fii lañ koy désactiver cliquer désactiver voilà gis nga compte de marque nii lay mel par d'origine boo ko transféré wul voilà léegi ñu tëj léegi ñu dem ci YouTube solution bi nga xam ne compte de marque bu ma transféré la nga ko voilà YouTube solution li ma lay conseil nag yi opération yoo xam ne ay transféré compte soo ci nekkul à l'aise wala bu làmbatu li nga ciy def na leer nàññi ci sa bopp voilà pour nga bañ a perte sa compte ñëw fii ñu ngi ci formation Youtube solution bi ñëw autorisation gis nga dama transféré autorisation yi voilà ji nga transféré naa ko ci adresse email bi jox ko autorisation bu nekk propriétaire ci compte de marque bi ñeneen ñi ngay gis fii email yi ngay gis fii yëpp ay nit yu jënd formation YouTube solution bi la ñoo ngi ci biir waaye mooy membre yi nekk ci euh, WhatsApp li bi nga xamante ni moom mooy YouTube solution bi ñii ñëpp ñu ngi ci biir YouTube solution bi kenn ku si nekk sa email ajouté naa ko fii moo tax da nga a dugg ci biir canal bi di seetaan vidéo yi voilà ñii ñëpp am nañ accès pour mën a ñëw xaar ñu woon la contenu bi. waaw contenu vidéo yi ma fi def nii voilà ñooñu am nañ accès seetaan vidéo yëpp waaw vidéo yëpp lañ mën a seetaan voilà 22 vidéo mu ngi ci canal bi 22 vidéo yëpp mën nañ ko seetaan yi ma ci mujjee ajouté mooy 4000 heures yi soo bëggee am 4000 heures de visionnage mu am jafe-jafe nga mën a fexe ba utal ko sa bopp def naa ci ay vidéo pour def naa ko tam ci YouTube solution bi ñi nga xam ni am nañ formation mën nañ ci am accès directement voilà lii mooy kon li nga xam ne mooy différence ci compte de marque ak compte personnel léegi nag kon waxoon nañ la fin bi dinañ fi nga xam ne boo ko cliquer compte yi nekk ci email yëpp dinañ contre bi jiitu mooy contre principal bi si topp ñooy contre de marque yi loolu fan lañ koy xamee dangay ngay ñëw ba léegi ci logo bi nga cliqué ñu demaat ba léegi si tableau de bord bi fële def chaîne soo mu soo ñu mën yóbbu foofu voilà voilà ñu dem paramètre mu ngi nii paramètre ñu demee paramètre fan la ñuy ñëw dañuy ñëw ajouter ou gérer votre ou vos chaine maanaam yokkal da yokk da ngay créer chaîne bu bees wala da ngay gérer sa chaîne yi existé ba pare wala nga cliquer ko mooy bii ci digg bi nga cliquer ko soo ko cliquer page bi di ubbeeku yu adresse email bi nga am fii canal yi si nekk yëpp dinañ feeñ fii bu doon 10 canal yi 10 yëpp ay feeñ benn kase moo ci compte principal 9 yi compte de marque lañ ci nekk boo xoolee ban mooy compte de principal bi mooy bii nii bu jiitu mooy compte de principal bi yi si des yëpp compte de marque YouTube solution bi compte de marque la marque Kalida compte de marque la su ma créé woon yeneen compte de marque beneen bi day tege fii beneen bi tege fii beneen bi tege tege noonu lay def ba ba dem ci suuf voilà mais bii jiitu mooy compte euh, li nga mooy compte principal bi voilà kon nii mooy ni nga xamante ni doon ngay mën a ràññale sa canal yi nekk ci sa benn email bi. ban moo ci nekk compte de marque ak ban ci nekk compte personnel waa j'espère que leer na koo ci xam am nga ci ay jafe-jafe euh, comme ni ma koy waxee kii baa ngi si suuf mën nga poser question yi ci li nga xamante ne mooy commentaire yi bu ko defee heure bu ma libre su ma gisee commentaire yi dinaa si tontu sinon bu dee da nga ko jaare ci whatsapp bi da a jaare whatsapp bi te benn yoon rek kay joxe 1000 francs mooy bi ko bu baax nag vidéo di ñëw dinañ la wan ni ngay transférer compte de marque def ko ci beneen adresse email processus bi muy commencé su fekkee compte bi nga bëgg a transférer nekkul compte de marque da am compte principal benn email nga am am ci benn benn canal YouTube mais canal YouTube boobu email bi mu nekk neexula par exemple email bi ki ko doon créer daal bi mu koy créer dafa tudd daf ko def jaxate siise kebe arobase gmail point com ku nekk xam na ni jaxate siise kebe arobase gmail point neexul ndax ñett sant yooyu mooy loolu voilà <laughs> léegi yow nga bëgg a sa adresse email tudde ko looyeen arobase gmail point com waaw ndax xam nga ni looyeen aroba gmail <laughs> point com moo dàq jaxate si sa kebe léegi nag bu boobaa euh, da ngay créer adresse email boobu ba pare soo ko nga ñëw ci sa canal YouTube nga def ko compte de marque soo koo déplacé loolu lañ leen di wan nag euh, vidéo bi topp si bii nan lañ koy defee incha allah rabbi jërë ngeen jëf.